donc yéen pour que ñenn ci seeni ñooñ bokk vous êtes prêt à en découdre avec Macky au risque de compromettre la paix sociale non, dans, le, ce, dans le ce pays là le problème c'est pas une histoire de paix sociale euh, Maïmouna la paix et la stabilité euh, stabilité réew mi ak jàmm ci réew mi ci mbagg kenn dong la nekk mooy président Macky Sall moom si boppam moo bëgg yàq Sénégal wax naa la ko sànq Macky Sall dafa am ay nijaay yu muy waxtaanal. nijaay yi ñan lay. mooy Ouattara nijaayam la. ah d'accord mooy tonton baptisé day waxtaan ak Paul Kagame ñooñu ñëpp xoolal façon bi ñu yoree seen réew et ci logique yooyu la nekk malheureusement xamul ne tey Sénégal li mu ñuy tiitale mooy armée bi day jël pouvoir bi oui dana am instabilité ñun sénégalais yi ragaluñu loolu. nga yaakaar ne Macky Sall gënu la la xam ne Sénégal du Rwanda Sénégal du du du du Côte jëfewu ko. nga yaakaar gënu koo xam jëfewu ko bu ko jëfe woon du jël ay candidats di leen sàkkal pexe li mu def Karim Wade dellu def ko xalifa Sall dellu di ko jéem ci Ousmane Sonko mën na ko jéem ci ñeneen ñi mu romb. mais là ñii xam nañu fi mu jëm. fu mu jëm. mais fi mu jëm mooy fexe éliminer Ousmane Sonko tey yow jaaxalu la par exemple Bougane taxaw ne day défendre Ousmane Sonko. ok man man. xam nga tax man papa comprendre. mais non non non xam nga lu tax. man comprendre ma la sax mais xam nga lu tax. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. moi j'adore la compétition. madame man gaynde laa. <laughs> gaynde man man dama ñeme compétition. dama bëgg compétition. cest mais dans la sportivité. da nga bëgg euh, Sonko bokk ci compétition bi. mais mais mooy tax mu neex. Ah. bu ma gañee man 2024 te gagné wu ma <laughs> gagné ma gagné élection yi san Ousmane Sonko mais loolu du ma neex. mais mais mais mais Bougane xam nga man Fafa du ma la comprendre yaa ngi koy wax sànq ba ba ba tey. mais Ousmane Sonko dafa war a bokk ci ay élection pourquoi tey Macky Sall war a jàpp ne réew mi ndonoom la pour xool ki ko neex ni diw mi day jàll ak diw du jàll. yow tey yaa ngi ci dans la presse waxuma waxu réew de waxuma waxu wut réew yow mii rek ni ñu seddalee aide à la presse d'accord ci. dëgg la wala dëgg waaye jëluma ngànnaay. dama dénoncé yàlla